Euh, coordonné programme yi ni mu leen ko présenté euh, di kontaan loolu seen teew parce que ay partenaires lañ ñun ñi euh, dafa am message yu ñuy wax ma bokk société civile bi bëgg ci jël sama wàll carrément ci rawatina lépp loo xam ne man dama jàpp ne luy defar la l'islam bi wala réew mi Sénégal wala Afrique wala adduna bi yëpp dama ci joxe sama xalaat bu ko defee question yaa ngi noonu ñu jox leen ngeen laajte ma tontu ci sama kéem euh, kàttan ak sama kéem euh, xam-xam di leen remercier waat encore bismillah euh, waaw réew mi foofu la toll ci organiser ay élections législative li ma ci njëkk a wax mooy wax dëgg yàlla Sénégal <coughs> war nañu dépasser ak histoire politique Sénégal ni mu mel est-ce que xam ngeen ni Rufisque su ma juumul mën ngeen ko confirmer après avec les universitaires yi def sciences politiques et cetera Rufisque organisé organisé nañu élection euh, dans les années dix huit cent et quelques avant France avant France ay élection municipale kon Sénégal background boobu mu am war nañu dépasser élection bu jot ñuy poser les mêmes problèmes seetlu ngeen ko depuis daanaka Senghor ba léegi toujours les mêmes problèmes fichier bi jaaduwul euh, liste bi pourquoi ñu bëgg ko éliminer parrainage bi nangam Sénégal war nañu dépasser loolu. Euh, dëkk yi nga xam ne dëgg-dëgg démocratie bu silvisé moo fay dox dañuy def seen élection normal suba sa ñu dem liggéey ay dëkk yoom ay millions centaines de millions d'habitants léegi Sénégal bu élection jegee daanaka at boobu ak at bi ci topp fitna la ñuy dund donc man li may njëkk wax mooy loolu war nañu dépasser loolu te man damay gis ne classe politique bi am nañ ci responsabilité trop dañu war a respecter le Sénégal engagé wu politiquement lu baax la au sens noble du terme mooy da nga jàpp ne am na loo mën a indil sa réew dans la gestion des affaires publiques mais kon doo installer sa réew ci benn crise perpétuelle boo xam ni ay milliards lañ def ci fichier électoral bi ku gagné dootoo wax ne fichier bi baaxul ku ñu gagné nga ne fichier bi euh, baaxul élection yi liste bi liste bële euh, da gis ñoo xam ne ñu ngi coow politique coow politique bu ñu leen ne indi leen dossier duñ ko matal. alors que ku bëgg yore réew man déjà dama lay xool déjà ci est-ce que tu capable de t'organiser pour que li nga xam ni loi bi moom la laaj ci ay bagages ni ngeen koy waxee yéen xale yi ci ay dossiers nga pare ko à temps déposé ñi nga xam ni tam ñooy pouvoir bi ñoom tam dañu war a organiser ay élections yu transparentes yu tegu ci yoon bañ a ërtal nit ñi bañ a def dara loo xam ne yóbbu fitu euh, opposition parce que démocratie dëgg du ndam nga nekk ci pouvoir euh, éliminer ñi nga bëgg éliminer ñëpp. Euh, dàq liste yi nga bëgg dàq yëpp ba pare dem gagné élection yi loolu du te kuy doxalee loolu tu n'es pas vrai démocrate démocratie boo xam ni da nga créer condition yi nga xam ne yow rek yaay mën a gagné loolu ban démocratie la donc dañu bëgg mooy compétition bu saine bu normal boo xam ne ñëpp ay am les même opportunités parce que réew mi kenn moomu ko ku fi nekk tey ci pouvoir bi jëlal président Macky bi mais am na nu Sénégal doon demee citoyens yi bañ engagé wu société civile bañ a engagé wu ak euh, yeneen parti politique kon tey moom du d' accord ngeen ak man am na jaar-jaar yu metti yu mu amoon fii nit ñi seetaanuñ ko ak euh, le régime de Ablaye Wade kon nag moom tamit il doit pas faire moins que le régime de Ablaye Wade mooy que nañ ñu organiser élection yu normale mais aussi ñun en tant que société civile ñun képp koo xam ne li ngay def jaaduwul ñun dañ la naan duut baaraam parce que ñun dañuy jouer ci ay équilibre réew mi dafa soxla ay équilibre donc ñun tam duñu wax ne opposition bi lu mu def rek ñu ne noonu la euh, parce que pouvoir bi ñoo leen tooñ kon tamit opposition bi nañu indi seen dossier normal li nga xam ni moo mujj xew démb euh, mën na indi na ci réew mi mooy que ni vraiment euh, organiser élection boo xam ne ci réew da ngay mujj éliminer liste ñi nga xam ne ñoo gën a représentatif ci opposition du am sens kon finalement kan ngay demal compétition bu ñuy wax démocratie mooy compétition politique dañu war a def compétition politique sénégalais yi dégg nit ñi joxe ay programme euh, wax ne lii laa bëgg pour que ñu mën a tànn Euh, kon loolu lañ ci soxla mais opposition bi tam nañ matal li ñu war a matal parce que aussi bu fekkee da nga ni man am naa mbooloo jeunes yi man lañ àndal euh, lu ma neex laay def mais damay dem élection loolu tam rafetul kon nag nañ ko teg ci yoon euh, fi mu nekk nii ñu bàyyi listu yeewi askan bi ñu mottali li ñu war a mottali ñu dem ci élection yi def compétition bu normal lu ko jiitu te du ma ko sori dara muy àndu yeewi askan bi ak wàllu Sénégal ñaari coalition yoo naka nga man de bettuma bettuma gis nga politique eh, ni ñu koy faral di waxee ak ka nekk dëgg il faut jamais dire jamais en politique ñi ñi waxoon ñëpp ne ñoom duñ ko def ñu ngi koy def fi mu nekk nii du ma tudd ay tur mais politique moo tëddee noonu moo tax politique dafa laaj flexibilité te am na ñoo xam ne dañu yaakaar ne flexibilité mooy ragal mooy mboqat man mii dañ ma koy eh, jiiñ suba ngoon Imam Kanté dafa nooy trop position am dafa woyof nangam ak nangam mais xam naa li may def parce que dafa am yoo xam ne boo ci amee position bu catégorique suba sa rek mu am lu lu lay wan ni mieux vaut da waroon yaatal yëf yi tuuti am flexibilité politique taxawul fen fenn parce que ay xalaat la ak ay adaptation ak ay situation yu changé du science exacte politique du 1 plus 1 égale 2 donc man loolu dafa may jaaxal mais nag gis nga boo nekkee ci pouvoir borom xam-xam bi dafa ne na ngeen moytu ñaar kii nekk ci pouvoir ragal ko ñàkk kooku lu ne dana ko def ci ay ay mbir yoo xam da naan kii xàmmeetuma ko politique moo mel noonu yëfu pouvoir moo mel noonu dafa am mystère boppam euh, ki nga xam ni tamit dafa bëgg a jël nguur moom tam léeg-léeg mu mel ne ku xaw a ñàkk sa sagoom donc na ngeen xam ne euh, affaire jamais ak affaire euh, kii ku bon la man maa baax du ma a ànd ak kii gis ngeen ko fi du ma mës a transhumé nangam ak nangam yooyu yëpp réalité politique bi wane na ni jaru ko li gën daal mooy nga wax sama programme mi ngi nii ah képp koo xam ni nag. Euh, war naa mën a ànd ak moom dañ koy waxtaanee parce que da ngay toll foo xam ne yow rek xam nga ni du loo mën a dem sans def ko coalition kon bu fekkee da ngaa euh, bot di ñëpp dès le départ ñëpp nga ne leen da ngeen bon man maa baax euh, kon après su su alliance jotee rek nga am problème kon nag nañu gën a yaatal dënn yi gën a am réalisme politique te loolu warul warul firi tamit fenn ngeen baal ma ak wax lu dul dëgg ak loo gëmul déedéet c'est pas la même chose mais dangay wane rek ni man lii mooy sama programme lii laa bëgg mais man rek nekkuma ci réew mi waaye ala kulli xal koo xam ne dama war a ànd ak yow dañ koy waxtaanee teg loo xam ne mën nañ ci juboo soo ko waxee noonu mën na am mooy tane que dès le départ rek nga ne man maay nitu dëgg man rek maay politique politique bu rafet ku dul man naa fekk nga gëmoo dëkk bi nangam ak nangam euh, et cetera ku jël nguur gi tamit euh, daal ne voilà ku àndul ak man du ma mës a jubóog yow cetera loolu de politique bu rafet waaw mën na fiable mais tout dépend ci euh, ni nga ko tegee rek xam nga da ngay xool aussi euh, pour centage bi ak moom euh, côté bi mu ko xoolee xam nga li ñuy wax souvent le verre à moitié vide ah ou bien à moitié plein statistique tamit daanaka loolu neex nga leen ni wax loo donc loolu moo tax souvent président yi ñu yore pouvoir bu ñu joxee ay chiffres ak ni ñu koy interpréter. boo demee laaj ñi nga xam ni dëgg-dëgg seen xam-xam moo màcc jëm ci ñoom ñoo lay jox interprétation scientifique bi nga xam ni euh, moo jaar yoon euh, loolu benn la ñaareel ba mooy que ala kulli xaal même bu fekkee pauvreté bi recruter reculer na mais comme li ma la ko waxee déjà il faut nga xool critères yi mu ko tuddee moom euh, ñaareel ba mooy que même bu fekkee reculer na ci benn côté ala kulli xaal jarul jarul jarul jarul jàppee ndam parce que effectivement la grande majorité des sénégalais ba tey fi mu nekk nii mënuñu faj seen i soxla niñ ko bëggee kon nag il faut relativiser tout ça vérifier encore comme yéen da ngeen ni euh, tas xibaar su ngeen demoon tey euh, laaj des économistes euh, ñi nga xam ne surtout économétrie ak ñeneen ak ñeneen des démographes statisticiens et cetera ñoom ñoo lay gën a mën a interpréter chiffres yi déjà wax est-ce que chiffres yi chef d'État joxe. parce que déjà combat boobu day am déjà chiffres yan la ak tam ci benn période la ah euh, ak tamit nan lañ ko war a interpréter euh, par rapport ak situation euh, Sénégal mais ala kulli xal képp koo xam ni bëggal nga réew mi avancement di nga xam ni même bu pauvreté réculer relativement y encore beaucoup beaucoup de problèmes de pauvreté et de satisfaction des besoins des Sénégalais ci éducation ci santé ci assainissement ci sécurité ak yeneen ak yeneen ci environnement qualité de vie mais boo ko listee du jeex mu ne euh, kii di lu jëm ci euh, LONASE ak parieur mu génne ko Tivaouane moom mooy maire Tivaouane actuellement wala loolu de j'applaudis j'applaudis à ça parce que loolu euh, même am na réew yoo xam ne du sax l'islam moo tax ba bu yàggul Union soviétique bi nekk Russie léegi dañ fa doon tere lépp luy jeu de hasard ba mu yàggul waaw kon diine yi tamit en tout cas su ma nee diine surtout li ma ci jublu mooy euh, tawraat ak euh, alquran bon injil mu ngi ballee ci tawraat euh, dañuy tere jeu de hasard Sénégal tam nekk réew l'islam boo xam ni ñëpp juboo nañ mazhab yëpp ci lislaam que ni jeu de hasard lu xaram la loo ci lekk lu xaraam la poson la kon loolu waruñu ko dawleel ci réew mi muy LONASE muy yeneen forme yi Euh, parieurs yooyu ak jeunes yi euh, niñ ko tàmmee léegi euh, loolu baaxul ci réew nañu former nit ñi xale yi ñu former leen ci métier xam ne xaalis bu dagan yombul ñu liggéey boo defee jeu de hasard yi xam nga ni yeewu suba teel rek ñu ne la gañe nga ay millions te ñoom duñ ci perte mukk nga xam ni kon am na luñ ci lëmës kon nag yi ànd naa trop ci Diop Sy loolu mu bëgg a doxal ci Tivaouane te dañ ko war a sax yaatal ci euh, Sénégal yëpp parce que tey jii boo xoolee LONASE est que xam nga tey ñun ñëpp xaalis boo boo boo laal te mu jóge ci euh, xaalisu Sénégal rek LONASE laal na ci loolu bu ci kenn nax kenn kon nag nga xam ni lu doy waar la. waaw kon dey wax dëgg yàlla euh, di leen remercier di leen wax ni kontaan naa ci ngeen ñëw fekk ci équipe bu Càmbar TV. Euh, poser seen question ma tontu sama kéem kattan sama kéem euh, xam-xam j'espère que tontu yi leer na sa veut pas dire que ni samay tontu sax day convaincre mais li ma wax quand même loolu laa gëm te ni ma ko waxee itam nii laa ko bëgg a waxee léegi nag yéen yéenay seet euh, après nu ngeen ni exploiter jataay bi ah li ñu gënal de man ak équipe bu Càmbar TV mooy jeudi bu nekk incha allahu taala ñu mën a dajeeg yéen su ngeen disponible. Euh, jàngat euh, doxinu àdduna doxinu Sénégal diine ji euh, sans tabou question bu ñëw ñu seet ñun nuñ koy tontoo di leen remercier bu baax di leen ñaanal bon retour